بخى إساما ربي مالكي خليلي ولدي
asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu taahu wahabu yaa rasaaqu yaa maliki lifta wahabliya warsuqni bi kuñil aana tey fii ajila ajilan bil bishri maamalatin xata uqima di diinillahi arkana asiru joxe bi tuuba wax ni ni waqi ni adal wara wa tudib li sama iskana kasama wal aradi wal hawa bila musharikin li mashku bana ajib sadu bisri min xaasana di muhammadin wa tahli faaxin bana asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi siyaare ñëpp di siyaare waa am xati mu tarbiyu fi ñëpp rek xadim ko nii ak fay ak abisax yi ñëpp am na sa xadim yi ñëpp ñu ngi leen siyaare di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaqa xafidahullah waraa di di di ca teg Cheikh Ahmadul Muxtaar xalifatu Cheikh Mouhamadul Mustafa ak seeni rakk ak seeni doom ñëpp rek ak ak bokk tay bi xam naa kon tey dañoo bëgg a waxtaane màggalu màggal bu njëkk bi ñu ko mag ñi daa waxe ñaari màggal boobu booba moo am ñaari màggal bu njëkk gi ak màggal gu mujj gi xamatuna sax danañ wax naan màggalu daa xurus geeg màggalu sëñ Seex ak màggalu diw waaye màggal gu njëkk gi la lu tax muy màggal gu njëkk gi dana leer ci ci waxtaan bi màggal la màggal la goo xam ne màggal la goo xam ne mooy màggalu inchiruna muharram ñaar fukki fan yi nga xam ne ci la sëñ bi ñibbi si Tuuba kon kon kon moom màggal la màggalu ñëpp la màggalu bépp jullit la màggal la goo xam ne mbégte la mu tedd ndax ci la sëñ Tuubaa ngërëm yu tedd yi ndax ci mujj rek wax na ko ne suñu borom wàcce na ma ci yëpp daal liggéey bi lépp suñu borom wàcce na ma ci booba booba ma ngay junj mag ñi ne nekkat ñu ngi ci waajtaay daal di ne yi lépp rek suñu borom wàcce na ko ci bi mu toll tam xarit gi bañ ca duggee bañ ko jubee daa wax ne day at mii ñu jëm wërsëg wa bokkuma ca at yi duñ ko indil ci weeru mu xaram wi du ko laal ndax daan moom bokku ci boobu booba mi ngi junj mag ñi booba waaw ci lay waxe naan saxali ka kamal yi sa sa mat moom wér na ci booba sax la defoon xutbatu wam sasin ba bu suy mat lay mu jóg ba yaxaloon maam fat sàmba jóob sunu sunu maam ja doomi suñ samba sujj xaddasallahu sirrahuma wa sirrana bi sirrihima wax na ma ne ma sëñ Tuubaa mi ngi defoon waxtaan wax ca penku jàkk jooju ci ci ci biir kër ga ca mihrab ba noonu ca ci kanam mihrab ba ci bitti nee na foofa fa la ko defe woon sëñ Sofa Samba nee nañ dañoo wut ay sëri njaago wërale ko daa wax ne nañu ko wërale sëri njaago nga xam ne moom ci biir lay nekk maq suura ba mbooloo mi nekk ci ci biir yi sëñ sëñ sëñ Madame Diop la la woolu jàngaloo ko surtout Baqara ba ca ba ca mux li xon ja noonee rek nga xamante ne nga xamante ne daal di dinkaane ne kat mag ñi kilifa yi ku amul yitte dëgg bul génn bul sori soo soo soo mënta ñàkk tamit bul sori daal di wax ne nañ teye gone yi ak jigéen ñi ndax am na xew-xew bu mag buy bëgg am sëñ Mate Lamine Gueye fi doo si siyaare ji woon na ko mu njeere mu ne ko Mate Lamine Gueye demal maa ngi ñëw Touba wax nañ ne si simila bi ngay fi dossier bi mu ne ko bu jaar fenn nag simila ngay fi dossier ba mu ak seetu waaye nañu dafa tëju ñetti fan daa tëju xam naa ndax dana ndax ci xabaar ba ba nga xam ne kon mi ngi bëgg a ñëw sëñ Ibra Njaay am ma suub la woon waaye xale si nee na booba mag ñi sëñ bi ne sëñ bi ne day dem tubaab ñu yaakaar ne ne day dem ak ci sayir si ñëpp di wàcc ngir kii séebal ñi njaay ne ah seen i bët yi neexul rek waaye sëñ bi jóg na malaaka ka yaa ngi fees dal ci asamaaw di ko teeru sëñ ba njaay ku jàmbaar la nga xam ne ne nekkoon sëñ bi kon boobu moom moom moom mi ngi mi ngi kon tàgge boobu tàgge mag ñi boppam ba bañ xam ne moom mi ngi ci waajtaay ta Cheikh Moustapha bu mu génnoon na demoon na ba ñaaxin booba gan sama maam Aminta Diop taawam sa sëñ Mor Dior nee na ma booba sëñ bi daa toog ba digg ba cëkk ab caali naaw dugg ci biir néeg bi tong ci kaw luppam lupp Cheikh Moustapha nee na Cheikh Moustapha ne bërit daal di ne caali bi day ndaw la daa am lu muy wax ñoo ko sëñ bi day ñu ngi toll ci jeexal bi ci yi mu ne baax na la day dem dal di dal di di di fagu dal di wéy jaar na gaawaan booba Cheikh Anta booba boo boo boo jaaree ci kilifa booba jamono melut booba nii dalukaay mën naa am jëmbut faaw dana dana baax sëñ ba waxe waajal waajal la ab dal bu yàlla gan nga sëñ ba daal di Cheikh Anta nekk ca wataay wa sëñ bi ginnaaw moom sama soi ginnaaw moom dégg na xabaar ba wax nañ ko ko xabaar ba ndax wax na ko ko kon kon moom léegi mënut a toog bu daal di ne ndax gaa yi ne leen bu Cheikh Anta génnee ne leen ko ko dem naa daal di wéy daal di ñëw njaareem ba bu liggéey njaareem laaj suñu wataat si la bëkk néeg la laaj mag ñi fu kën ngeen gën a dégg dégg sëñ bi kenn ko nekk wax la nga xam mu mu woo suñu rasil la rasil la ne ko gën ko dégg mu ne ko man de daa man de daa mel ne am na loolu lu ma ci xam loo xam ne la mu ñu mënu ko tuddoon. Cheikh Moussa daal di woo Cheikh Mouhamadoul Bachir ñoo ànd ak sëñ rasil la ci kees boobu nga xam ne maam maam maam Cheikh Fatak Diop booba moo moo fa ne ak sëñ Ibnu Amar ak ñooñu. sëñ Ibnu Amar boobu sëñ Ibnu Amar la wala sëñ May maa xamatul sëñ Ibnu la yaakaar sëñ Ibnu moo doon bokkoon ca ci bokkoon ca tout tànk yi nga xam ne ci ndigalu ca sëñ Cheikh Fata ko ci yenn ñu ñu ànd ba fa fekk ko noonu sëñ Mara si la nee na booba ku ci xamul dara ci baatin booba xamutul dara si nga ne njëriñ moom sama subaa yenn na fa ba ba ngoon ba timis jë ca ca la soog a dem ci sëñ bi loolu demee ànd ak suñu Lamine Diop Cheikh Amadou Bachir daal ne si daal ne daal ne su ma des si lay yokkat jiitul sëñ bi nee woon na fu ma ne sëñ nga ma faa fekk dégg nga teggin yi kay de kon léegi sëñ ma si li kon moom moo moo sëñ jiitu kon mu jiitu dikk nuyoo salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum ba muy ñetti yoon kenn fayu ko la ko jiitu sama bàyyi nee na ma si ma dasi la nee na ko li ma mujj wax ak sëñ bi moom damaa yëngu salaamaaleykum sëñ bi ne kumu ma ne ko matasil la ñu ne allahu akbar mu ne ma lumu ma ne ko xanaa noddu mu ne ma daw daw leen jëm ca dégg nga ne ni mu fonkee julli ko moom daw leen jëm ca daal di wéy noonu su ma daal si la daal di nuyoo kenn fay mu daal di ubbi bunt bi fekk sëñ bi mi ngi tëdd ci ab der sol mbu mu ñuul lu am solo la loolu mbu mu ñuul mbu mu ñuul ma gis naa ci gis naa ci dara am naa ci am naa ci dara sax lay wax ko mbu bu ñuul la sol mën a ab palmaan bu ñuul moom la sëñ sëñ bi mujj jëfandikoo fekk ko mu tëdd noonu ci ab der jëmale tànk yi ci bunt bi daal di jël ay téere ñu seq ko ay téere ko seq téere yi nga xam ne alxuraan ak xasida yi ñoo ko seq mu daal di simra si la làmb tànk yi raay tànk yi noonu raay ko daal di xaw ma ne ko tàggu sagoom daal di kii Cheikh Moustapha daal di kii daal di nuyu moom it salaamaaleykum salaamaaleykum ba mu ñetti yoon mu daal di mu daal di di ubbi bunt bi dugg dugg tàmbale ci tànk yi di raay ba ci dënd ko daal ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waaw nag wax nag ci waajtaay wa sëñ Bachir ñuy waxee ak sëñ Cheikh Coro noonu ñuy waxee ku ma nag ba mbir yàgg yooya ba ñëw Touba si si sama soo moom ñëw Touba yónnee na yónnee na na ca mag ñi ñëpp rek jëw tudd nga xam ndax am na daa nga jëw tudd yónnee ca mag ñi ma ma ñi daal ñëpp daal kon am nañu dikkut moom am nañu dikkut waaye am na ñoo xam ne seen sooy yëblewul ci ñëpp ndax am na sabab waaye yëble na ca mag ña ma nga caat seppi ñeen rek muy kàngamoom ya sëñ Mbacke Bousso maam Cerno sëñ Abdourahmane Lo sëñ Mat Lamin ngay Firdawsi ñooñu moom seen soi yónnee na ko kenn ku ne ci yoon ñoom mu ne la mu ne nee leen ko ku baax ki neen na ko fekk Tuubaa sëñ Mbacke Bousso fekk nañ ko mu waaj moom ba jekk di xaar ndaw li maam Cerno fekk nañ ko mu waaj ba jëkk di xaar ndaw li ba ñëwee ba ba foofa mag ña laaj nañ fu ñu koy def nag am kenn ci ñoom wax ne diggante new gi ak bib gi new gi am naa ca maam fat samba ma ca joxoon moo ca tàngoon mooy mooy barab bi rek diggante new gi ak bib gi sëñ bi de am na lu mu fi doon wax loolu wax ju xóot de moom yoo xam ne koo dégg sax doo mën nga bañ xam ne moom kon kon kon kon kon kon du wóor waxoon na ci ay ay mbir mag ma mag ma jàmbaar lool daal di gas ba ba ci dikk jaram xaw ma daal fay dugal bantub bantub kii nga ko waxati bant yooyu nga nga xam ne du du gaaw ma xee tuuti fay yiir bantu bi mag ma jàmbaar la nga ne maam Thierno laaj bu ñu koy def mu ne kon bisimilah bañ ca nekkee ba fajar saxaar ñu noddu ñu ne ko xanaa biñ biñ dugalee jëmm ji ci ci barab bi ba ba noppi am nañu am nañu wax ne suñu bakki buso bañ koy taxaw ba ci digg ba dafa kaan wala ma ñu wax. waaw nag am na am na am na ay mbokkam yoo xam ne ñoom loolu dañ koy bétitu xam naa moo ne moo ne teranga dong la de ma la su sunu borom gi léegi daa xool ma loolu neexatu la ne waxi dëgg moom daa kaanu ba mu kaanoo la mu wax daal ne nax nañu ba dem sëñ Mat Lamin Gueye fëddu si ne am nañu wax ne moo àggale julli ga am nañu wax loolu kon lu ci war rek sëñ bi Mbacke Bousso moom moom dara yaam leer na ndax sëñ bi sëñ bi dinkane woon nen na ko taxaw taxaw gi nag du du dara moom aada képp la salaay salaam nañ ko taxawoo nag man bu bu ma doon boobaa doon dama naan leen def leen ko noonu salaay salaam Abubakar Siddiq dane woon néegam bi buntu sarale bi salaay salaam mi ngi ci ci kaw lal bi na ñëpp di dugg ci buntu bii di aw ca beer ko ak si ba ci moom ñaanal ko dal di wéy góor jigéen ah déedéet ak ku ñuy ku ñuy jullee ah ah man baxul asraar man man baxul xikam man baxul anwaar al waa si satul eq dina bii na waaye lépp rek kooku kat sëñ bi. Cheikh Saliou keroog bi ñu koy taxaw gaa yi kii noppi nag gaa yi nekk fay lakk ko wax diw sangam di di lakk di wax di seere ma ne acam alay wax sëñ Saliou moom ngi ñëw moo moo tedd rek xanaa. daanaka boo waxee junni baat benn baat bi yem ñu seetlu tedd ok noona bañ defee noona ba noppi ci Cheikh Moussa moom ma nga ma nga ma nga njëriñ ci xaar taarixam bi mu ci bind bind na ci taarix am solo bi sëñ Cheikh Moussa bind na ci ci bindum loxoom taarixu loola la xew maam Thierno daal di ñëw. am Cerno boobu booba mooy kilifa kër ga ndax mooy bàyyi daal di ñëw daal di wax ñu sax fa tag ko teen bi ci biir kër jigéen ñi nañ ko nañ ko tëj te wut ndaw lu toog ca kaw nga xam ne ragal ne jigéen ñi bu ko déggee mën naa am danañ bu bëgg a def yëfi jigéen nga fa tàggu laxasaayu daal di wut lu ko lu ko toog ci kaw ki wér ga soxna Faati tawakkalat alallah wala soxna Faati takko nday maam Cheikh Faati takko di maami sëñ Mortala nday soxna Mbéye maam Thierno daal di dem ca moom wootu naa woola ko mu ñëw bokk yaakaar naa la loo def waaw da daal koy ko mu ne ko ah man de damaa gis kii bi takk der yi ne yi wër kër gi indi nañu ay takk der booba ñu wër kër gi ah loolu daal dama waxoon ah ne ko mu ne ko sëñ bi de mu mu moo dem tubaab ah mbaa du kon ci kon la amoon rek kaam mbaa du kon ci kon tubaab bi dañ koy bar mu ne ko déyee wii de demeen woo wuti na waaw nga xam ne nga xam ne foofu foofu la xisa ba tàmbalee nag riir ci waa Tuubaa it ba ba jant fenkee bañ seen bañ seen bañ seen nu nga waxati barag ba sëñ Fallu la wax naan borom barag bi barag ba ko séenee ñëpp ñëpp daal di yuuxuloo yi daal di nag njëre mi noona noona Cheikh Moustapha nag ca mat ga mat ga nga xamante ne nag léegi nag war a taxawee ca boo demee ca ca xisaam ba ba muy nettali yëf yi danaan alxalifatu nangam mu def nangam xaamin xalifatu bi kasa daana moom daan na yëkkoon daan na yëkkoon responsabilité bi yu bari nag ci xew na fa nekk ci taarix yi taarix yoo xam ne daanaka jotu nettali ku ko xamutoon yàlla boo ko xam boo ko koo ko xam it yàlla boo ko nettali ci ci taarix yi Cheikh Moustapha booba ceddo yaa ngi fi booba Baye yaa ngi fi booba tubaab yaa ngi fi booba ñëpp a ngi fi daal booba mel na ne xaw nañ ko xatal booba xiise xiise waaye nag matam nga li li li bu ko defee ñi ngi wax ci màggal gi ndax sëñ bi woon rek la waaye si Cheikh Moussa wax kon kon taxawaay ba màgg mu na bokk na ci li gën a tëdd mooy yor jaboot gi tout tànk yi ay rakkam ak waa barsàq yi soxna ya maam Thierno ba mu dikkee daa wax soxna yi soxna yi daal di kenn ko rek sëñ bi wutoon na ay amoon na xisa bu am solo maa ko nu ma koy ràbbe Seera Fall dafaa joxe woon dafaa joxe woon junni ñetti téeméeri dërëmi ngordo wala wala junni dërëmi ngordo la la fa génne woon Cheikh Moustapha sëñ bi jël ko jox ko Cheikh Moustapha Cheikh Moustapha dem wut ko génn ci kafe ak suukar gi ak i mbàjj yi dem génn dem joxaat ko Seera Fall ne ko xanaa xanaa xanaa bàyyi de xanaa lii dana baax ci mag ci sedd bi booba nekk ay yib la ay sekkaraal sekkaraal sekkaraal ba mu dëddee Cheikh Fall ne Mourou Moustapha wax na ak mag wax na ak mag Cheikh Moustapha junni dërëm yooyu mu joxoon suñu am sëru jaxate mu indil ko sëñ bi dama naa ko la la nekk ca suuratul xaddir yi ma nga ca junni alfu shahriya wax nañ ne ne ne loola la sëñ bi dinkaane woon ay mël faak lu ne ak satala ñu ñu waajale ko soxna ya su soxna Awa Diop sunu maam jooju maam Thierno yoroon nee na maam Thierno dana na na ñëpp na solo waa kër gi mu solo rek solo ci mëg yi maam Thierno ah ku muuru day doo muri ko yaa ngi muri koo alaxira ba sàq maa koo xam ne da dangaa nekkat dama bokk ci kër gi te bokkoo ci ah yaa xam de waaye bu muru dudu kii de maanaam li muy junj mooy duutoo am borom kër lu am solo ndax mu war a mu war a si seen tur wa ñëw waa barsàq kenn kenn góor du fa sañ a dem waaw maam fa Samba wax na ma ci wax na am solo wax na ma mat naa nekk lu am solo nee nee na daana ñëw ci barabu sëñ bu mag bi ñu ñoom soxna yooyu nga xam ne ñu ko daa jàngal xasida ya di ko riim maam maam jaxat si la nee na ma nee na ma ak takar ci kolanteeru sëñ bi ci lañ daane ñoom toog ca ta takar ga di di jàng xasida yi di ko riim nee na bu bu seen baat bëggee kawe sëñ bi daana fettesu femmuli waaw ñooñu ñooñu ñooñu ma façon nee na nee na ma daanañ ñëw ci barabu suñu mag bi Touba di di defee riim xasida yi mu ne sax été sax de bëgg nga leen a arrêté waaye sëñ Bachiroo bañ lu am solo loolu loolu lu am solo la waggar googu ma am na solo waaw leneen it bu leen amaatee it gaa yi taxaw yi taxawaayu sëñ Bachiroo lu am solo ndax li li xew tey bu yooyu amoon kon mara day tali Cheikh Moussa taxaw taxawaay taxawaayam bu tedd ba la la la taxawaay bi nga xam ne ne moo foor lool mooy yor soxna yi mu toppatoo leen saytu leen am na ci loo xam ne rek mën naa firnde loola démb jë mooy Mame Fatou Samba Diop addi yi ñu ko daa jox te war a yónnee si sëñ daal suñ suñ suñ suñ sariw moom li muy jëfandikoo ñoom ñoo ko koy jox loolu xorom la kenn ku nekk yaa ngi xoole sama moroom ni nga ko war a xoole waaw kii kat ci waa barsàq yi la ëdd yi ngi koy jox moom da koy delloo kii ki fi nekkal sëñ Tuubaa ki fi nekkal sa sëñ Tuubaa moom it di jox ëdd yi ndeyam ci lu am solo la taxawaay yu am solo la foog naa moom moom it kër gu nekk maris na ko fa jànge ba xam noo koy def bu am solo la Cheikh Moussa Ba nekk ci ci ca loolu am na xew-xew yu yu bari xiisa yaag yooyu waaye yooyu moom amul njëriñ Cheikh Cheikh Moussa Ba wax ne ni may ànd ak sama bokk yi mooy lu ma am jox leen lu ma xam wax leen bale leen ak lañ am waaw waaw muy lu am solo lu tedd loo xamante ne boo xamante ne Cheikh Moussa kii woon na ko taxawoon na ko ak àgg na ci di jël so soxnaam sax di ko jox rakam waaw waaw Cheikh Mouhamadou Fadel mas na koo wax bis ne ko tey la tey damaa bëgg tey tey waaye am nit tey ab lal tey soxna tey bis bi rek lépp tey Cheikh Moussa sempi am néegam yit ko sëñ daan xëy loolu la wala yaakaar naa moo di tukki woon indaale ay lal yu rafet yu Cheikh Moussa Ba Cheikh Moussa Ba ne nañ ko poosam daal di koy jox soxna waaw loolu lépp lépp tey rek waaw moom war a si si Cheikh Mouhamadou Fadal daana wax naan ku ku sëñ Bamba di di di sa baay Cheikh Moustapha di di sa mag te de xanaa waru tiit dara xanaa loolu loolu loolu am solo la lu ama am solo lu am solo kon sëñ baa ngoog ñëw nañ ña guddig ñaar fukki fan yi ci lañ ci lañ ñëw Touba kon kon kon jiitu woon na ko kon ca ca jërëm leen Cheikh Moustapha nag di ko màggal ma mag ñi wax ci ñaari yëf Cheikh Moustapha waxoon na ko malaaka yi àndoon ak sëñ sëñ bi ba ñuy ñëw Touba saa su guddi gi dikkee danañ ñëwaat Touba kurisoog ñoom sa yaram araam na sawara Cheikh Moustapha waxoon na ne day neexal bi ma sëñ bi diggoon ne ma soo ma yóbboo Touba te bant te te toog bi tiimu ma xaddamul nga yëkkati jumaa ji ba mu weesu naax saa yi sa mbir yéwén na neexal booba neexal booba booba ku ku ñëw Tuubaa guddi googa dañ ca bokk waxaat ne it ne bis boobu ku ci bale Tuubaa buub Tuubaa mel nga ne kuy buub say bakkaar adduna tax nag léegi ñoom daa mel ne commission ba ñoom soppi nañ ko fa ñaar fe na wax naa leen ko ñu leen Cheikh Moussa day moo ko wax te loolu waxi wàllu yi la waaye daal ñu ne daal day xat moo moo moo ne du buub seppi rek la seppi rek na kenn ku ne yëkkati yëkkati aw xob rek dugal ci sa poos waaye adduna ngoog adduna adduna adduna dañuy fàtte ne yëf yi waxi wàllu yi la du waxi nit kese Cheikh Moustapha kon loolu tax màggal gi kon jóg wax na it ne màggal gi li tax mu wote ko ngir daa bëgg ñuy fàttaliku àllaaxira loolu xam nga ne fàttaliku àllaaxira mais ah sunu sang ba kat dem na kon buñ bëggee dajeeg moom it àllaaxira la ñuy dajeeg moom kon kon am na fu ñuy jaar kon nga xam ne kon kon kon loolu loolu taxoon Cheikh Moustapha Ka woote ko daana def bu dikkee ca barab ba barabu suñ mag bi ay kaamil la ñuy jàng xibla bu ne dana am ku fay taxaw xaabis boo xam ne moo fay taxaw di tarik kaamil bi sëriñ Samba Mbakke moo ko daa jiite di noppee duruskat yi xasida yi yëkkati noonu la lañ daa fanaane ca barab ba lu am solo yoo xam ne fi ñu toll yàlla na de dekkiwaat waay loolu waaw xëy na yëf yaa ngi ruus di de ma ngi dem de waaw Cheikh Moussa nag daal di nekkee noonu kon magal gaa ngoog yaakaar naa am na ci ñaan goo xam ne da ngeen ko kii da ngeen ko mën ngeen ko sax ki keele ñaan googu nga xam ne sëñ Abdul Xadim moom sëñ Baara moo wax ne Cheikh Moustapha moo leen ko doon digtal ci bisub magal gi ñu koy defal sëñ bi waaw yaakaar naa yaakaar naa loola moom bu kii rek ngeen ngeen kii ko man nag danaa yalwaan man lool man man yalwaan man ci ñëpp laa ko yalwaan allahumma kulli karimin akram dana bismillah alayhim alif laam miim innama sabil wala tujaadiloo daal di wax alhamdul karim akram ba jëtti bay di jeex nga def ko ñaar téeméer ak fukk yoon defal ko addee Cheikh Moussa Ba loolu moom maa ngi koy ñaan moom ndax daa ndax damaa daa daa am ku géntoon wax ma ne ma Cheikh Moussa Ba nee na waxal Cheikh Moussa Ba ne ko yoral na ma bor ci ci alhamdul karim akram lam lam lam ba muy ñett ma xool ko mu ñaar téeméer ak fukk Moussa Ba Diop di ñaar téeméer ak fukk defal ko baa ko baa ko ci cox naa mais sax moo ma ko def moo moo ma ko defal foofu mu ko defee laa génn gis ko waaw am solo xam naa nga xam ne koy képp ku ko dégg te xam ko it jombul boo amee wuy jur wu dem wala sëriñ bu dem mën ngaa jël sa limu tur wa ak sant wa seet ñaata la su dee bari na ba bari nga def ko téeméer fukk ak benn waaye ñetti ñetti fukk yi moom moom guddul moom moom ma ci war a addi yàlla addi yàlla ma ko sama soppi ba sama sang ba sama lépp rek man Cheikh Moussa waaw kooku kooku kooku moom sopp naa ko lool sa sa sa dafa mu xorom mi doy wax naan Cheikh Moussa rek gaa gaa yi ko sopp dañ ko sopp ba turu mi sax buñ koy wax sax mujj gën dañ koy wanaatu nee na nee na Cheikh Moustapha ji mujj gi da koy war a suur waaye waaye ni mu ko waxee sax day ci xam ne wuñu ko xam naa waaw kon de xam naa ko kon magal gàngo muy lu mat a def dégg naa naa ci wàkk Sëñ Lam Jóob ñu wax ne Sëñ Lam Jóob moom danaa jàngi kaamil ca këram njaareem ba takkusaan tum naa ba julli tusbaar bernde li muy bernde daal di nag dem Tuubaa ndax ndax daa mel ne guddi guddi gi mooy mu yëgee waaw kon kooku ne xanaa kon bàyyi daam jëng xanaa kon xanaa kon xanaa kon kii ne xanaa kon kon kon magal gaa ngoog du magalu da xudus du magalu sëñ Cheikh du magalu Cheikh Moussa màggalu sëñ Bamba la tawfeex yi ci nekk bari na ku buub ci bis bi say bakkar nga ci koy buub fanaan ci guddi ga riisoog malaayika yi indi woon sëñ Tuubaa Tuubaa ku fa ñëw si Cheikh Moussa nee na nee na neexal ba ko su suñ duwaay di digoon da nga ca bokk di di dégg nag ma naan teew tubaab ti tiwu ko am na ñaan tubaab tiib na ko ak naa nga bëgg yéen am na waaw loolu loolu version tubaab bi la waaw waaw waaw waaye moom sunu sunu version moom mooy tiimu ko mag ñi leeral lañ ko lu tax tiimu ko mooy commandant moom xaalis la bëgg Cheikh Moussa ne woon na ko buñ buñ buñ la sonalee ci gis man na naga leen jala xaalis bi Cheikh Moussa jëlax leen gaal yi xaalis yi ku maanaam ne ne ko ñaata la mu ne ko jël ko xam nga kooku mu nekk sant moom dénk la ay gaal xaalis te te xamoo ñaata la Koana moom da day yó- yóbbu gaal yi lay def moom ba nëpp moom soog a wax ak yow waaye nag ma ma ngeen ko ko ko yóbbu kooku it lu am solo alaaji ma surung surung sëriñ Moussa Surung moom it doomam ministre boobee moom moom moo ko nettali daa xudus bi bi tubaab yi ñu demee ab diir tubaab yi dañoo dañoo wax Cheikh Moussa yu ne fa ne ko kat sëñ bi kat dañ laa mayoon rek nga denc ko fa denc ko niggandiku waaye amuñu woon ndigal commandant boobu amul ndigal ca gouverneur dañoo wax ne dañ koo bëgg a jël yóbbu ko jëmm ji Cheikh Moussa daal di di dem ca si am seetu jaxate sëñ mook sim saba dafa xam comme ci jëkkati si wut xëy jaxate moo ko nettali lii moom daal di di di ne seen surtout tubaab bi kat dañoo wax ne dañoo dañoo bëgg a jël jël si jëmm ji te nag la la leen sëñ bi joxoon tey taxoon seen surtout ne ko fii ba tugal lu fi fii ba France lu fi yëkkati ko ma gis ko mu dem wax mu dem mu dem wax ko seen surtout seen seen Masamba seen seen Masamba waxaat noonu nga xam ne nga xam ne loola antuwul. waaye la ko jiitu alay alay alay mu soosu nee na ma bàyyi ma si si mu surum surum daa waxoon si mu subaan ne ko defal ko defal ko titre foncier dëkk bi li war ju li war barab bi mooy tax tubaab bi du fi sañ a def ab baar du fi sañ a bistron baar du du fi sañ a def ab église alay ma surum surum moo xelal Seex Mustafaa loolu loolu lu am solo la jooju jëf jëf jëf ju jëf ju tedd waaw kon xam naa ko ko kon yiñ ci mën a wax ko su ñëw kon kon foofu kon doy na jaxara yàlla nañu yàlla fekkale màggal gi ay at at yu bari te te ñoo ne- def ko mu jaamu mu yàlla màggal màggal gii moom kenn wuru caa mooy yàlla kenn wuru caa fo waaye màggal gii moom mu ëpp na ëpp naa fo moom bu dee jigéen ñi nañu nañu toog ca kër ya bañ a dem di jaxasoog mbooloo ku mën a sikkar lixlaas nga ma loo ko mën a jàng junni lixlaas yi ñu doon jàng ci tey ci Ashura gi keroog la gën keroog la gën jàng lixlaas li lixlaas soo ko mënut lim boo ci man ba ca fukk fukk ak benn ya ba ca fukk ak juróom-ñeent ya ba ca noo ko may rek waaw lixlaas yi laa ilaaha illallaah téeméer fukk ak benn ba ci junni ba ak téeméer fukk ak benn waaw noo noo noo ko mën rek ba basmala yooyu soo ko mënee di fukki fukki junne ak ñaar yé yéene ko sa sëñ Bamba ba tey noonu juróom-ñaar fukki junni laa ilaaha illallaah soo ko mënee yéene sa sëñ Bamba waaye nag soo koy def nag pas-pas bi nag bul jàpp ne da ngay yokk si sa sëñ bi borom Ibris nee na boo dee ñaar yonent bi salaam jàpp ne da nga koy yokk dañ la koy delloo së ndax yonent bi salaam da la koy dencal képp de. kon loo koy defal xamal ne la dala koy dencal yow sëñ bi moom moom moom yàlla noppi na ci moom waaw ilay ilayya farra ma ilayhi farra xisbul ilaahi man adama birra kàngam yu tedd yi dëgg dëgg dëgg dëgg saxoo baax lañ daw di ko wuti loola da da wut si moom kooku kon kooku moom kooku moom kooku kon moom loo koy defal dala koy dencal rek waaw ko def naa kon kon yokkoon taw fi kaaraange yàlla na ko sunu bambole ñun ñëpp wéral la chance ba di di dinka lam dinkaane bu rëy bu tedd ba mu daa wax rek nag chance ba sama sama bay da ko fonkoon baat booba ne ne ah mag ñi bindal naa seen bamba ñeent fukki kamil yu manqué benn ku ñuy wax bàyyi sax bay dikkiri mu mu mu daax loolu nee na sama saako wax am na ñu ñaan ñu ñeent fukk ak nangam waaye man daal lu xese boobu boobu daal la laa xam te man koo soloo ci ci fu ma fu ma jàpp nag kon ñeent fukki boobu manqué benn kii waaye indi indi naa ko fi nangam nangam ñu koy indi naa ko fi daal di ne dégg naa ngërëmam te mooy sama baay daal di ne mag ñi li ngeen gëm ak a baax mooy suñu Bàmba waaye ci waaye man Mourou Moustapha jub moom a doy wax ju rëy la moom jub moom a doy jub suñu ba gëm suñu Bàmba baax na de waaye fa mu joxoon ñoon ne aw leen fa foofa ma doy sant sant